regroupement des femmes yi nga xam ne tey dañoo ñëw bees dugg ci biir APR maa ngi leen di dalal jàmm fii ci biir Kaolack ci biir APR di leen wax ne na xam ne gannaaw bi sa tey fii ci biir APR seen kër la comme ñëpp APR seen parti la APR ña fa nekkoon démb ak barki démb ak yéen yéen a yem damay dégg toujours ñuy wax naan APR ñoo ko faloon ak ñoo ko nommé woon ak ñoo ko karye woon dama ne APR dama ne ñi fi dugg tey ak ñi fa nekkoon démb yéen a yem képp. ah parce que. ah que kuy fëgg dënnam ci biir APR. ku ne Macky Sall la jox doole jëgee fëggee sa dënn. kuy fëgg dënnam ku nekk ci biir APR naan man la. bu doon yow dong Macky Sall du falu. Macky Sall ay nit ñoo ko fal am mbooloo ñoo ko fal ay nit ñu engagé wu ci fu nekk ci seen doole yi ci seen alal yi ci seen man-man yi ci seen xam-xam yi ñoo engagé wu ànd ak moom gëm ko ànd ak moom indi ko fii fas yéene waat ànd ak moom gunge ko ba keroog fa muy wax ne fii laay mën a taxaw kon maa ngi leen di wax ne leen na ngeen xam ne kenn gënul leen a yey tey ci APR gannaaw tey kenn gënu leen a bokk tey ci APR gannaaw tey kenn gënu leen a am sañ-sañ ci lépp lu ñuy wax wala lu ñuy def ngeen fekkee ko ci biir APR gannaaw tey yéen ak ñëpp yéen a ci yem képp yéen ak président Macky Sall mi nga xam ne mooy patron APR yéen a yem képp tey ci APR li ko ci war moo leen war lim ci war a def moom ngeen war a def mooy defar mooy baaxal mooy jubal mooy walloon yéenu njub mooy wan leen fan lañ war a jaar ba jëmale réew mi fii nit ñi nit ñi di xaar loolu ko war moo leen war yéen kon yéen a ci yem képp gannaaw bi sa tey te APR fa mu nekkoon démb ak tey ak fi mu jóge bi ñu defee campagne ak tey ku jàpp yaakaar ne mën ngaa taxawal APR ci ca trompe personne personne mun te tee moteuru APR personne laa wax tey jii la APR gën a dox tey la APR gën a yaatu wante am na xam nga bugguma dugg ci yenn détails waaye dama ne ku amul fukki nit boo toogee na yaafal Macky Sall xam nga ti da trompe. am na ñoo xam ne ñoom reconnaître nañ seen bopp na amuñ base waaw ku amul base politique nooy waxee na yaafal ak yaa folleeg parti dox na ak parti doxul ku amul base waroo wax ci affaire yi farak folli boo amee xam-xam nag ñi ngi koy ñi ngi koy rafetlu. boo amee xam-xam ñi ngi koy rafetlu waaye fal ak folli moom bul ci wax parce que yow munoo fal munoo folli ku munta fal munoo folli nag waroo wax ci affaire parti buy dox ak parti bu taxaw loolu waxu caaxaan la nañ bàyyi seen caaxaan yi nañ bàyyi seen fawda yi fawda baaxut mag du fawda mag du mbege dama ne parti bi APR ñoom ñi jàpp na ñoo koy doxal nañu woote waat suba combat suba ci suba nañu woote waat suba huit komba combat su boobaa danañ xam ne moteuru APR bi nekkul seen loxo xam nga li ñu war a xam mu leer xam nga politique politique dafa bëri ay mbir am na ñoo xam ne amuñ ñaari nit ñi ngi fi nekk ci ay tour lañ yor ay slogan tour ñi ngi koy respecté ñi ngi koy respecté yàlla ku nekk ak lam la may waaye du ñoom ñooy wax mbooloo mi li ñuy def du ñoom mbir mi nekkul seen loxo mbir mi mi ngi nekk ci loxol ñi tee base yi ñi tee base yi nag wuñ personne ku dul président Macky Sall nañ bàyyi caaxaan caaxaan baaxut ku ci nekk soo amee loo bëgg wala la soxla amal fu laaj fayda dem ba ca ki nga xam ne moom la yàlla dogal tey ndogal yi nekk ci loxoom nga wax ak moom ci yar ak ci teggin waaye bul yaakaar ne mën ngaa def dara wala nga wax dara loo xam ne mën naa tax nit ñi bouger wala nit ñi nga doo yëngal dara sa mbaxana mi sa kaw bopp mënoo koo yëngal. maa nga leen di félicité bu baax di ñaan jàmm di félicité mbooleem équipe bi nga xam ne ñoo àndoona Ndeye Sakho di liggéey bàyyiwuma kenn ñi mu ànd ak ñëpp xam na leen moom du na leen léegi ñoom ñëpp maa ngi leen di sant leen gërëm di sant ñeneen ñi nga xam ne aussi nekkuñu fi di sant xale yi jiir ñoom tam weekend tey weekend bi mag ñi la woon weekend bii di ñëw jeunesse bi danañ jublu ak ñoom pour ak ñoom. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa salaam.